salaamaaleykum gars maa ngi leen di nuyu di leen dalal ak jàmm ci Sen Sport 221 Boubacar Kamara nekk jeune franco sénégalais bi moom ñu ngi koy annoncé foofu la ca FC Barcelone kii di xibaar yi fesal nañu ne jamono yi Barcelone kii di Boubacar Kamara la ñu bëgg moom la ñu jàpp ne moo nekk successeur idéal bu kii di Sergio Busquets moom kii di Boubacar Kamara ngeen fàttaliku ne li des ci contrat am ak Olympique de Marseille bareetul mën nañu wax ne daal matul sax at. ndax ba fii ñuy waxee moom prolongé wul contrat am na nag yenn club yu ko bëgg bokk na ci FC Séville AC Milan ak Juventus jàppoon nañu ne sax li nga xamante ne mooy ci transfert yi ñu génn moom dina joge foofu de Olympique de Marseille waaye ñu gis ne loolu jul xew ba fii ñuy waxee prolongé wul Barcelone nag ñoom jàppoon nañu ne kii di Boubacar Camara daal moo war a wuutu kii di Sergio Busquets foofu la ca FC Barcelone kon Barça bëgg nañu ko Juventus Séville ak AC Milan yëpp ñoom itam bëgg nañu ko ñu fàttali leen ne kii di Boubacar fi léegi weer yu néew maanaam mois de janvier rek mois janvier bi nga xamanteni mo ngi ñew buñ ci àggee amna droit ngir waxtaan ak bép kala bo xamanteni bëgg na ko signé bu wara dem fek fofu la free transfer ci li xamanteni moy euh, saison bi ñu nekk su jéxé bu fekkante ne amul kenn ku ko mëna a signé balaa boobu droit ngir négocier contrat ak benen club bu ko neex ci li nga xamanteni mois janvier bi di ñew voilà kon fofu la mbir mi nek comme niñ leen ko waxé ba Juventus FC Séville AC Milan ak Barcelone ñent club yi yépp bëgg nañu ki di Boubacar Camara Ismaïla saar nag moom dafa bokk ci nominé yi ci joueur yi nga xamante ne ci lañu war a tànn ki ñuy tuddee joueur du mois de septembre. voilà joueur bi nga xamante ne moom lañ gën a ràññee ci weer bii ñu nekk di mois de septembre bii nga xamante ne daanaka jeex na euh, nomine yi nag ñeent lañu. wala juróom buñ sukkandikoo ci kii di xibaar kii di Ismaïla Sarr international sénégalais bi ci la bokk moom nag daal dinay marqué lu toll ci 4 bi comme ni ngeen ko xamee comme moom tàmbali ne saison bu bu baax a baax jamono yi nag ñi ma koy xëccool bokk na ci Mohamed Salah ki nga xamante ne mooy Eh, Saint Maximin bu Newcastle ak ki nga xamanteni moy Antonio Cristiano Ronaldo ak Joao Cancelo bu Man City ñom juroom ñi ñoy nominé yi ci kenn ci ñom lañ wara a mu wara nek jour bi gëna a ci mois septembre bi bile. Aliou Cissé wara publier li nga xamanteni moy liste joueurs yi ñu wo ci match yi nga xamanteni Sénégal a koy waajal muy seen ak Namibie muy ñaari match yo xamanteni ñi aller ak retour lay doon. mooy benn bi ñu koy footballé fii ci Sénégal balaa ñuy dem foofu nga xamante mooy ci Afrique du Sud bu ñu sukkandikoo ci kayiti xibaar yi nag Aliou Cissé ni ki suba ci la koy jàlle maanaam ci ajuma ji bu fukki waxtu jotee ci suba dina dal di def li nga xamante mooy conférence de presse am ci loolu ci lay biral li nga xamante ne mooy liste de yooyu ñu woo Abdallah Sima nag kayiti xibaar yi fesal nañu ne moom amaana du ci bokk ndax kat dafa am gaañu gaañu boo xamante ne moo waral ba du mën a bokk ci jongante yooyu moom Abdallah Sima nag bu ñu fàttale ko semaine bële passé ci la daal di woon am gaañu gaañu ci match bi nga xamante ne Stoke City ñu ngi ko doon joué contre ci coupe la woon ñoom sax ñoom muy am ndam Stoke City moo dooroon ci jongante googu waaye Abdallah Sima gannaaw bi mu duggee ci deuxième mi bi dafa mujjoon gaañu joué na nag match bi ba mu jeex waaye daal dafa am gaañu gaañu ci doojoor bi loolu waral na ba jamono yi am na ñaari match yoo xamante ne Stoke City na ko moom kii di Abdallah wute wuutee na ko te buñ sukkandikoo ci xibaar dina amaat yeneen ñaari semaine yoo xamante ne dina ko toog balaa muy dellu si kon kon lu fekkante ne noonu la demee moom Abdallah Sima du a bokk ci liste ab Aliou Cissé donte ne bokkoon na ci joueurs yi nga xamante ne convoqué woon na bu ci bokkoon it dina forfait ndax am gaañu gaañu bu koy war a téye fi lekk yeneen ñaari semaine ci kanam kon du a bokk ci liste boobule buñ sukkandikoo ci kayiti xibaar yi FC Barcelone ñoom nag gannaaw bi nga xamee ne kat seen saison dafa xaw a doy waar jamono yi ba kayiti xibaar di fisal na sax kii di Ronald Koeman ñu ngi ci tànki dàq ko Barcelone jamono yi buñ sukkas na ko ci xibaar yi ñetti candidat yi nañu ne kenn moo ci war a nekk kii kii war a wuutu kii di dafa am ci ñi nga xamante ne ñoo yor liggéey bi foofu la ca Barcelone dirigeant yi am na ci ñoo xam ne li ñuy sàkku mooy ñu dàq kii gën a gaawee ndax ñu gis xamuñu ko buñ sukkas na ko ci xibaar yi nag ñetti candidat yi di Xavi Pirlo ak ki nga xamante ne mooy Roberto Martinez kenn ci ñoom moo war a wuutu kii di Ronald Koeman kii di euh, Xavi nag bu sukkandikoo ci kii xibaar yi moom dafa daal di joxe ngànta moom Xavi pareegul ngir jël ñi nga xamante ne ñoo mooy équipe bii di FC Barcelone. ci loolu sax ki nga xamante ni mooy luy Suarez moom daal dina ci ñëw ndax nee na kii di Xavi nekk na koo xamante ni ku muus la ku yeewu la moom jàpp na ne daal Xavi waragul a jël li nga xamante ni mooy équipe bi léegi. moom Luis Suarez nee na moom si jëm boppam mu ngi dal di xelal kii di Saviney bu mu jël équipe bi di Barcelone ci jamono yi ndax jamono yi nee na Barcelone dafa nekk ci guerre foofu nga xamante mooy biir Barcelone dafa am guerre bu fa nekk boo xamante ni sax maanaam mu ngi gaañ joueur yi voilà maanaam euh, noonu la ko kii di Luis Suarez am euh, xamle maanaam daal am na ci lu fa nekk loo xamante ni daal ñu ngi koy xeex xëj na wala xeexante bu fa am boo xamante ni joueurs ñu ngi ciy gaañu bu baax a baax loolu waral na ba nee na Xavi jamono yi waxtu bi jotagul ngir mu war a mën a jël équipe bi di Barcelone na xaar ba ci kanam loolu nag mooy li nga xamante ni sax buñ sukkandiko ci kii di xibaar loolu la fesal ne Xavi moom jëm boppam dafa daal di joxe ngànte jamono yi pareegul daal ngir jël équipe bi di Barcelone kon Pirlo wala Roberto na kenn ci ñoom mooy wuutu ki nga xamante ne mooy kii di Ronald Koeman Pirlo nag bu ngeen fàttale ko ay weer képp ci ginnaaw la ñu ko dàq foofu la ca Juventus moom moo amewoon Juventus at yi ñu génn waaye nag jamono yi kii di Roberto Martinez mooy eh, entraîneur bu Belgique ñoom ñaar daal buy sukkandiku ci kayit xibaar yi amaan kenn mooy wuutu kii di Ronald Koeman dinañ ci xam la leer fi léegi fan yu néew bu dee ci euh, mbirum candidat yooyu ba tey dégg buñ ko ci kayiti xibaar yi nee nañu Barcelone yëngaloon nañu dossier wu ki nga xamante ne mooy Luis Enrique bii nga xamante ni moom sax mooy entraîneur bu Espagne waaye moom daf ko dal di dinaay maanaam daf ko weddi nee na loolu rumeur la rek ndax moom jàpp na ne ki nga xamante ne mooy Juan Laporta amul sax numéro moom loolu la wax mu ne man day foog naa ne kii di Laporta amul sax sama numéro de téléphone kon moom euh, moom ki nga xamante mooy Luis Enrique xëy na moom bokkul ci ñi nga xamante ni ñëw war a wuutu kii di kii di Ronald Koeman moom daal nee na waxtu bi jotagut bu fekkente ne war na dellu sax foofu la ca Barcelone ndax moom bàyyul xel mukk bàyyi équipe nationale bu Espagne moom Luis Enrique loolu la le ki nga xamante ni nag mooy Antonio Conte bi nga xamante ni moom entraîneur bu Inter Milan la woon niki at yi ñu génn moom nag dafa daal di wax ne daal Chelsea ki nga xamante ne mooy Romelu Lukaku moom xam na ko bu baax xam ngeen ne Romelu Lukaku niki daaw saison bu rëy rëy la def foofu nga xamante mooy ci Italie dugal bi yu bari moom Antonio Conte nee na daal ki nga xamante mooy Romelu Lukaku Chelsea xamaguñu naka lañ ko war a usee maanaam xamuñu daal yoon biñ ko war a jëfandikoo ndax nee na ki nga xamante ni euh, boo xamante ni daal bu fekkante ne Chelsea utiliser nañ ko comme niñ ko war a utiliser maanaam mën nañoo gagné li nga xamante ne mooy Ligue des Champions bi ci yoon boo xamante ni daal xëy na bu jàppandi lay doon ndax nee na ñi nga xamante ne ñoo di Chelsea football club seetlu nañ ñu ne daaw amuñu woon attaquant bu baax dañu doon def li nga xamante mooy rotation maanaam toujours dañuy faral di indi ay changement ci kanam gi ren nag ñu am attaque pointe boo xamante ni moom euh, mën nañu wax ne le propre strike la mooy ki nga xamante ne mooy Romelu Lukaku kon moom gis na ne daal bu fekkente ne Chelsea xam na yoon bi ñu ko war a jëfandikoo mën nañu def lu rëy ci saison bi te sax nee na mën nañu gagné lii di Ligue des champions moom kii di Antonio Conte nekk ancien entraîneur bu Inter de Milan moo ko daal di rotal salaamaaleykum